Madame Ndaw Rose Gueye maay vice-présidente Ligue sénégalaise contre le cancer chargée des relations extérieures lan mooy LISCA LISCA association la bu nga xam ne mi ngi juddu en 1985 parce que dafa amoon benn association bu bëggoon may Sénégal benn appareil de cobaltothérapie pour ñu mun di def radiothérapie léegi ay médecins regroupé wu créer LISCA mais ñoom biñ ko créer ba jot appareil boobu rek dañu arrêté seen activité yi ñun nag bi ñu toogee ñu gis ne que en 2009 nekk vraiment cancer fi mu nekk nii sonal na waa Sénégal ñu ne nañ suqaliwaat LISCA donc activité yi ñu ngi leen recommencer depuis 2009. suñu première édition moo doon 2010 2010 bi ñu commencé suñu édition première édition dañu obligé woon di dugg ci biir koñ yi di woo jigéen ñi naan leen kaay leen kaay leen ñu xool leen dañ leen di seet gratuitement mu nañ ne sensibilisation bi li Liska doon liggéey depuis 13 ans léegi ñu ngi gis fruit yi mm-hmm. léegi nag euh, nit ñi ñoo ñuy woo di ñu laaj consultation yi kañ la fan la naka laay def ba mun ci bénéficier euh, bul jàpp rek nekk prise en charge bi ci octobre rose kese la du ci octobre rose kese at bi yépp dañuy recevoir ay dossiers tey jii fii ma toog di wax ak yow on a 400 dossiers plus de 400 ñeenti téeméer yu nga xam ne ñu ngi fa. te mënuñu leen jël en charge te commencé gu ñu octobre rose mais euh, dañuy def suñu kemtalaayu kàttan parce que aussi octobre rose lu tax ñu ne ku ñu dépister dañ lay jël en charge parce que nit ki mënuloo ko woo ne ko kaay ma xoolal la nga ñëw mu ñëw nga ni ko ah yow de am nga jàngoro ji wande ñibbil sa kër su ñibbee këram te amul lu mu fajoo yow lor nga ko parce que munoo wax nit ki da am bii jàngoro ba pare bàyyi ko mu dem noonu loolu moo tax ñi nga xam ne nag dañ leen di dépister durant octobre rose ñu am ñu bañ a am dinañu góorgóorlu jël leen en ñaata ñoo ñëw ci ci ci ñun ci jaaxle ci seen feebar moom euh, bari nañu ndax léegi dañuy am ñu nga xam ne dès le début ci ndorteel ba li ñuy ñëw ci ñun mooy comme ñi ñu dépister comme ñu nga xam ne dañu dem hôpital rek ñu wax leen ne leen am ngeen cancer fekk du octobre rose wala ñu gis benn médecin mu ne la ah man de lii ma gis wóoluwuma ko war nga def analyse bii ak yooyu ñu ñëw ci ñun ndax amuñu amuñu doole bu ñu demee am nañu ñu nga xam ne dañuy dem ba ci ba commencé ñu amatuñu moyen ñu ñëw ci ñun pour ñu jàppale leen am na ñu nga xam ni dinañu dem ba ci digg ba mënatuñu ñu ñëw ci ñun pour ñu jàppale leen. 750 personnes juróom-ñaar téeméer ak euh, juróom fukk lu ëpp juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk yu nga xam ne jàppale nañ leen te dañuy continuer di leen jàppale parce que bu ma nee jàppale nañ leen bu leen jàpp nekk dañu ñëw rek. ñu defal leen benn analyse ne jàppale nañ leen ñun bu ñu la commencé jàppale dañ lay jàppale ba mu jeex ba mu jeex bi dañuy ñaan mu nekk wér bu bu yàlla indee ndogalam itam dañ lay jàppale ba yàlla ba yàlla ñëw mais dañ lay jàppale ba dootuñu waxati cancer ci yow euh, sama belle famille dama ci am euh, plusieurs cas am naa ñaari euh, sama ñaari belle ñoom laay wax euh, ak sama ñaari cousine yu nga xam ne ñoom ñeenti ñëpp cancer moo leen euh, jàppoon. sama benn jànq ma ko mënee wax noonu moo daan sama doom moom moo amoon cancer bi mu amee cancer déjà bi mu nekkee ci kër ga ween bi di metti mu commencé am métit ak yooyu ñuy dugg di génn. mu dem hôpital dama ko daan gunge bu ñu yéggee may gis femmes yi nekk autour d'elle nga xam ne ànduñu kenn ku leen mën a jàppale may gis coono bi ñu nekkee mujj gi bu ma demaan hôpital damay nekk ku nekk ma lay laaj koo àndal euh, noo def di jéem a aider ci laa gis métitu faju boo amee cancer te amuloo yenn moyen yi loolu moo indi sama adhésion LISCA daan nga gis ku am cancer ba gaañu du xam ne cancer la am ndax demul hôpital ñu naan dañ ma kort ak dañ ma liiw ak dañ ma laa ak dépistage bi nag léegi dañuy gis cancer yi ba pare dañuy am itam euh, cancer bi ci stade bu nga xam ni dinañ ko mën a faj ba nit ki wér moo tax chiffre yi man duma nii cancer dafa avancé xëj na dafa avancé ci nombre cas yi ñuy gis mais dañu reculer ci nombre décès yi ndax li ñuy am euh, cancer bi dañ koy teel a gis teel ko faj fi mu nekk nii nag am am bi am na problème problème yi ñu am tey problème mu xaalis la ndax volonté baa ngi fi équipe baa ngi fi ñëpp a ngi fi mais amatuñu xaalis ci suñu kees yi pour mën a jël en charge tey jii bu ma la waxee ne la bu ñuy war a euh, rien que pose diagnostic bi nit ki bu ñëwee consultation docteur bi làmb na gis ne dafa am dara ñu ne ko demal defi mammographie ci octobre rose LISCA daf koy may mammographie boobu. ça nous coûte mille francs mais dañ ko koy may mu dem defi mammographie bi ñu confirmer léegi nag ñu war a confirmer cancer bi diagnostic bi trois cent mille la bu waree def radiothérapie radiothérapie bi cent cinquante mille la LISCA dafa def plaidoyer ba nga xam ni radiothérapie bi cent cinquante mille la chimiothérapie bi ñëwagul euh, kii bi ñëwagul euh, opération bi ñëwagul yooyu yëpp. garab yi nag kenn waxaalewu ko yooyu yëpp dinañu dem ba ay un million cinq cent mooy li gën a ndaw ci ñu mën a faj vraiment cancer bu nga xam ne ça a été dépisté très le reste dañuy dem ba som yu nga xam ne vraiment xam nañ ne njaboot mënu ko LISCA nag ñu ngi def suñu kemtalaayu kàttan pour mun leen euh, accompagner. état bi nag naam mi ñuy jàppale ndax nit ki itam bu lay jàppale da ko war a wax naam ñuy jàppale depuis quelques années euh, chef de l'état daf ñu fi recevoir oon promettroon ñu benn subvention de dix millions par an dix millions boobu depuis deux ans ñu def ko vingt millions donc état bi dinañ ñu jox vingt millions ma expliquer vingt millions yooyu lu muy servir. LISCA amuñu siège ñun dañu loué. dañuy fay ndox dañuy fay électricité dañuy fay ay employés naam bariwuñu mais am nañu au moins tey jii boo demee Liska di nga fa fekk ku la mën a accueillir am nañu gardien parce que dañu am matériel bu nekk ci biir donc ñooñu loolu ci vingt millions yooyu lañ koy fayee nous sommes à Sacré-Cœur Sacré-Cœur li ñu nekk suñu siège xam ngeen ne location Sénégal du lu yomb état bi lim ñuy jox subvention boobu ci fonctionnement bi rek lay dem te doyul sax dañuy wut di yokk pour subvention bi parce que dons yi ñuy jot ci malaat yi kese kese kese la jëm. LISCA c'est une association apolitique boolewuñu politique ci suñu association. boolewuñ ci religion bu ma nee boolewuñ ci religion du ñàkk gëm yàlla mais Sénégal dañ fi am ay jullit am fi ay katolik am fi ay animiste ñun malaat yi ñoo ñu soxal vraiment malaat yi lañuy ñuy toppatoo xooluñu ban religion nga bokk xooluñu foo bokk xooluñu ban parti nga bokk loolu moom dama bëgg mu leer nañ sama wax ñaar lay doon damay njëkk woote woote bi mooy wax jigéen ñi tey cancer dañ koy faj du fatalité boo teelee ñëw ñu teel ko gis dañ lay faj nga mën a dellu ci say activité moo tax sama woote mooy ñëw ngeen xool seen bopp bu ngeen ñëwee ci séance de dépistage yi di ngeen fa fekk ay docteur ay professionnels yu nga xam ne dinañ leen seet bu yàlla defee ne danga am jàngoro cancer ñu mën la faj te paj bi du metti ni mu war ni mu naroon mel su fekkee ni da nga yéex a yegg moo tax sama premier mu mooy un appel vraiment ñëw leen dépister wu ñaareel ñaareeli kii appel la itam lu ngeen mën jàppale leen ñi tey am nañu ay compte orange money compte wave orange money bi c'est dièse 144 dièse 626 dièse nga def don wala wave nga dem paiement boo demee ci paiement wave di nga gis liska nga bës ci liska nga def don xeebuñu dara tey jii on est plus de 17 millions de sénégalais 17 millions yi bu ku nekk defee dërëm dërëm laa wax xoolal ñaata lay doon waxatuma laak ku nekk def cent franc bu ku nekk defee cent franc cent wax dëgg yàlla mën nañ ne yomb na yàlla ndax ñëpp dinañu utiliser crédit lu ko ëpp bu ku nekk defee cent franc ci dix-sept millions yooyu mooy un milliard sept li ñu mun def bari de moo tax may ñaan rek ngeen jàppale Liska bu leen xeeb dara parce que ñun xeebuñu dara.